Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn sëriñ bi bu na ñi ngi sant sunu boroom bu baax a baax a baax a baax di sant borom liggéey bu rëy bii dundam gépp mu nekk diggante yàlla ak yonent bi di ko sant bu baax a baax ñi ngi sant mboolem kilifa yi yi nga xam ne teew si nañ fi ak ñi nga xam ne amoon nañ yéeney teew si fi walla ñu waa ñu yónnee wala ñu am ngànt ñi ngi sant ñëpp mboolem bokk jullit gi mboolem bokk taalib yi gis nañ taxawaay bi bu baax a baax a baax kilifa ak diine gum doon kilifa ak diine doon def na ko muy mbirum xam na ne kenn jiituwu ko jë loolu ñoom ñëpp xam nañ ko wane nañ ko di sant bokk jullit yëpp kenn ku ne góor ak jigéen mag ndaw kenn ku ne jàpp na ne mbir mi sa mbirum bopp la noo ngi gën sant nag ci yàlla dégloo leen ndigal li mooy dégloo noo ngi gën sant sunu borom bu baax ci jotaay ñaari kilifa yi toog ci bokk ak ñun liggéeyu farata sunu borom ji nga xam ne moom la ñu bokk ñoom ñaar nag mën nañoo taxawal réew mi yépp kii day taxaw taxawaayu waajur kii day taxaw taxawaayu doom ñoom ñaar day mel ni taxawal nañu réew mi yëpp noo ngi leen di sant bu baax di leen sant ji jataay bii nu yàlla boole noo ngi gërëm bu baax ñoom nag ñoom ñaar nag lañuy ñuy gën a ñaan suñu boroom ñoom ñaar yàlla yéwénal seen mbir yëpp yéwénal seen diggante bu baax a baax bu ko defee mbirum réew mépp day yéwén ñun ñoo ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp ñu jox yàlla njukkal sunu boroom teral na leen ba noppi lu leneen lu ñu gis lu leen neexut ci seen bopp loola dogalu sunu borom la sunu borom jaamam bum mu cëral in fokk mu nattu la kon lu luñ gis lu leen naqari ci seen bopp rek sequñu ko yàlla moo ko dox ci defaram waaye yàqul fawul juumul te mooy def mooy dindi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñaar ci jataay bi di leen ñaan ci sunu borom yàlla def liñ bëgg ci ñoom réew mi gën a defaroo ci ñoom ñi ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp itam ñu delloo yàlla njukkal sant ko ci lim leen defal nañu muñ ci lim leen teg te xam ne seen njëriñ képp lay doon waaye nañ ko wëlbati ñoom ñëpp jëf ko muy yéene ju rafet muy jëf ju baax loolu mooy nattu bi nu yàlla natt ñun ñëpp. tabaaraka alladi bi yadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir moom mi nga xam ne moo bind dund ak dee ngir mu nattu leen ci dund googu ba ba borom sàkkee dund sàkk dee li liñ ci wax leer na nañ defoonu ko lu dul defaloon nattoo rek di ñu seetlu li ci ku ci gën a rafet jëf loolu leer na nañ laaye jooju doyoon sëkk alxuraan ay junni junni laaye waaye laaye jooju doyoon na sëkk nañ ko dégg bu baax te jëfandikoo ko jërë ngeen jëf ñi ngi sant bu baax a baax a baax. jëwriñ nee na nee bi nee na Pape Malick mii nee na ñi ngi koy sant di ko yónnee ak cant. nee na mën naa fab cantam jaarale ko ci Pape Malick mi mu jëm ci kilifay diine yëpp ta nee na tabaarakallaahu dara ump ñu ci moom xam nan ko bu baax ba muy gën di ndaw laa ko xamoon ba léegi si doxin wu rafet rek laa xam ci moom loolu rek kon niñ koy sant bu baax ñu koy jote tant